asiru ma labrari mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan ci Leral TV xam ngeen ni ñu ngi ci diwaanu Touba Mbacké ngir euh, rek euh, daal di jëmmal euh, li nga xamante ni moom moo di màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii ñu nekk nii nag moom mooy kër soxna Moumi bu Serigne Touba fii nag dafa am wàll wu rëy rëy rëy ci ci màggal gi ndaxte dinañu ànd ak léegi ki nga xamante ni moom moo di Serigne Cheikh Abdou Mbacké mu soxna Bali mu daal di ñuy defal rek li nga xamante ni moom moo di visite guidée ci jumtuwaay yi nga xamante ni euh, ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba mu ngi ko doon euh, jëfandikoo moo xam euh, li nga xamante ni moom mooy ay bagage yu personnel am yoo xamante ni daf ko doon jëfandikoo ñu daal di dellu siwaat rek tuuti ci histoire ana lan mooy wundu li tax bagage yi daal di nekk si kër gi léegi léegi dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdou Mbacke mu soxna baal yi léegi léegi topp leen ma fii ngeen ñëw kër soxna mooy mu sëñ Touba la néeg bi ngeen nekk fii moo doon néegu boppam di ay bagages yi boppam la ak bagages yoo xam ne sëñ Touba ko moom daanaka fii kenn du fi tëdd sax néeg bi ba fi soxna su jógee ba léegi nii lañ ko bàyyi laal bële sëñ mag bee ko moom lii ay bagages am la gaal yi tamit am na ci yoo xam ne gaal yi sëñ mag bi la am na ci yoo xam yu bari yëpp yu bari ngi ci daal. moo tax ñu bàyyi ko fi def ko barkeelu muy suñ kaaraange di suñ. du suñ liñ li nga xam ne moom lay des ci Sëñ Tuubaa moo tax ñu def ko ni di ko sàmm jàngal xuraan rek mooy tax ñu fi dugg wala comme lu mel nii ñu def ko te lu mel nii sax duñ ko nangul ñu bari duñ ko nangul ñu bari papis mii lañ ko fi nangul ak yéen ndax Papis day kenn ci kër gi Birahim tamit di kenn. alors ñu jël kàddu rek daal koy jox euh, maam Thierno mu gën ñoo xamaleek euh, bërëb bi waaye itam euh, gën ñoo dikkaatal ci bagage yi nga xamante ni ku tedd ki moom moo ko moomoon waaye itam bagage yi nga xamante ni kii di soxna Moumi mu borom Touba moom moo ko moom maam Thierno maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. loo ñu mën a wax ci li nga xamante ni moom moo di bagage yi nga xamante ku tedd ki doon na ko jëfandikoo jëfandikoo ngeen daal di koy garder fii nii. waaw waaw bagage yi bagage yi soxna si la woon. soo mhm. xam ne bi nga ko jëlee woon ci sëñ bu mag bi. waaw bi mu fi jugee nag lépp ñu def ko nii miila suñ ko dañ koo bàyyi noonu ngir barkeeloo ko. ngir nga xam ne bagage sëñ moom fu mën a nekk ci àdduna kaaraange lay doon. moo tax ñu bàyyi ko nii nga xam ne néeg bi jàng alxuraan képp lañ fiy def waaye kenn du fi fanaan boo gisee dañ bàyyee téere yi nii. nga xam ne néegu barkeel daal dañ ko jàppe néegu néeg daal néegu barkeel lañ ko jàppe daal. Mhm. néegu la bagage yi lan ak la mën nga cee dikkaat. waaw am na ay kaamil am na ay gaal yoo xam ne nii ci sëñ mag bi la jóge woon am na tamit ay tarmos yoo xam ne sëñ bi moo ko doon jëfandikoo ak eh, lal bii ngeen di gis lalu sëñ bu mag mag bi la woon comme daal fii daal dara gi gi dara yenn ci sëñ sëñ mag bi comme daal lépp daal bagage yi sëñ bu mag bi la. boo ñu doon wax tey ji eh, li xamante ni diggante bi doxoon ci eh, soxna Momy ak ku tedd ki di waajuram ba tax mu daal di koy dénk yile bagage ñu garder ko fii ci biir këram boo ci doon dikkaat ginnaaw bi ma la nuyoo. waaw tedd na tedd goo xam ne bari na ñoo xam ne sax duñ fi dugg ndax duñ leen fi dugal yéen nag li tax ñu dugal leen bi Cheikh Abdou Mbacke mee tax waaw lépp loo fi gis rek sëñ Tuubaa ko moomoon lal bële nga defi kaay téere yi yëpp ci ay yére bagage lal bi kaamil yeeg lépp rek soos daal ñëpp seen maam la ñun ñëpp moo nu yar it waaw lum lum lu lum ci xam rek xam na ko daal baax rek mu tax mu dugal nu ci waaye mënoon naa mënoon na ci bañ dugal waaw sëñ maam Thierno sëñ Gallas Mbengue ñoom ñëpp ñëpp suñuy sëriñ lañ moo tax ba nga xam ne suñuy wax mën na cee bañ a gudd daal waaye soxna moom moom soxna moom ñëpp woon rek. kàddu yi ñu ci yokk daal mooy fii moom. lu ngeen fi gis sëñ bu mag bi moo ko moom gisoo lii yii nii ay gaalam la. yii nii nga gis ay gaalam la. am na ci yoo xam ne nii fi mu nii muy nit ñi ñëpp xamuñ lu ci nekk. ba léegi nii ndax ubbi ba ubbiwoo leen gaal yi ba xam ne. ubbiwuñ ko ubbiwuñ ko noonu lañ ko bàyyi ba fi soxna si jógee ba léegi noonu lañ ko bàyyi. Mhm. yi nga xam ne ubbi woon nañ ko daal xam naa ne am na yoo xam ne fekk nañu mu mu ko daan génne génne nañ ko yi nga xam ne génne ko tamit dañ ko bàyyi noonu rek mhm. ndax ay yëfam la te moom moo ko xam waaw waaye fii daal soxna mooy moom bagaasam yi te du du lépp da koo jëlee ci sëñ bi ndax moom dafa am ñaari cër ndax bi mu amee li nga xam ne ku sa waajur nelaw dañ koy miiras biñ miiraasee moom wàllam biñ ko jox ci sëñ Touba nga xam ne sëñ fàllu moo leen ko téyel ndax boobu ay euh, ci saayir ay tu tànk lañ waaye moom ak sëñ Fallou benn lañ sëñ Fallou moo téye woon wàll soxna moom yi ak soxna Maskora euh, soxna moom yi seen ci wàllam nag li nga xam ne moom la ci moom bi mu ko jotee mu téye yeneen yi leneen li ci des nag sëñ mu daaw bàlle mi nga xam ne moo ko yoroon muy waaju muy muy muy mu nekk Daaru Musi moom tamit dafa bari loo xam ne nii Seex Ibra Faat doo ko am ci sëñ Touba moom tamit bëgg gum bëgg sëñ Touba ak ak taalibeem da daan jël ci barkeelu sëñ Touba yi damay at soxna si boo gisee soxna mooy bari la ci loolu la. sëñ Mbàkke Bousso ñu ko njëkk a yor tamit kaamil bi soxna Jóob Mbàkke bind mu sëñ Touba nga xam ne soxna moom ko moom nga xam ne soxna gàdd mii tey jii moo ko moom fii la nekk tami te mi ngi ko jëlee ci sëñ Mbàkke Bousso moom moo ko moom kaamil baa am na ay dàllam fii tamit am na mbubbam moo xam te ngi fii mbub mi tamit dañ ko fay bàyyi eh, ci mbokk yi ak ci taalibe yi ku ci faatu rek ñu dindi ci dencaale ko ndax barkeelu sëñ Tuubaa moom fu mu nekk rek njariñ la te sëñ bi danaan wax naan eh, ñu ku ko faatu ñu dencaaleel ko lu bokk ci sëñ Tuubaa da ci am yaakaar ci moom dañu am yaakaar ci moom ndax du ñun ñoo ko def bi sëñ Tuubaa daan dund nit day faatu mu jël mu jël mbubbam daane nañ ko ko dencaaleel wala mu jël lu bokk ci moom wala aw feggumal dara ñu dencaaleel ko moo tax ñun tamit bi loolu amee ñu bàyyi ko fi ku faatu ci ci taalibe yi wala ci mbokk yi wala ci kenn lañ ci mën dindi rek nañ ci dindi defal la ko. alors euh, mbokk téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo mhm, ñu ngi woon euh, fi nii kër euh, soxna Momy mu Serigne Touba bërëb bi ñu nekk nag dégg ngeen li nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdou ak suñu mbokk yi wax nañu ko ci bile bërëb ngëneel yi ci nekk ak barkeelu bi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ko fi amal di ci barkeelu ci bagage yi nga xamante ni sëñ bu mag bi moom moo ko doon jëfandikoo moom moo di euh, soxna muumi moom bu borom euh, Touba doon na ko jëfandikoo ñu tam itam ñu daal di fii euh, ñëw rek daal di leen koy dégtal comme mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu koy defee anam bu jot rawatina ci màggal 2023 bi ñu nekk jaajëfal nañ leen ci seetaan bi waaye itam di jaajëfal bu baax moom mi nga xamante ni moom moo di sëñ Cheikh Mbacke ci dalal bi mu dalal ñi nga xamante ni moom moo di groupe Leeral TV Leeral Média waaye itam Leeral FM Leeral point net ak li nga xamante ni moom moo di Leeral TV jaajëfal nañ leen bu baax baax euh, Mbacke ñu ngi lay euh, gërëm bu baax di la sant ah ci dalal bi itam yaatal bi nga xamante ni yaatal nga ko groupe euh, Leral TV di ñaan yàlla rek yàlla taas ñu ci barke ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon nekk ci bile bërëb waaye itam ci barke li nga xamante ni moom lañ ko fi fekk jërë ngeen jëf ومن كل سوء وهو جل مجير مسيريا كوني عبد خادم النبي